xool ñaar ñi wax est-ce que doo gëmee ñaar ñi wax ngay xool kii yàgg naa tuumaalaate kii yàggoo ko dégg muy wax lu dul dëgg man dégg mosuma sa Moustapha Niasse wax lu dul dëgg soo ñu maam jooju waaye Sonko moom tuuma yu dara fondewul moom yàgg na ko def. Hmm. tuuma yoo xam ne da koy topp ba ci biir mu nekk ci corniche bi kaay wuy ji mu nekk di wër mbedd yeeg yooyu yëpp moom yàgg na ko def. yàgg nga ko tuumaal kaay une commission d'enquête mu ne man damay dem gàmmu Fassou Mbodian du ma ñëw ci ko problème kon yooyu kon mënuñu téye ay waxi Sonko daal fi ne nii mënatuñ ci téye dara jëfam la xaar mais wax ji moom wan romb nañu. mais bu ñu gisee soññ gi mu nekk lu rafet c'est-à-dire na député yi wane taxawaay boo xamante ne askan wi dinañu gis seen bopp bi assemblée nationale. soññoo woon na fi ci déclaration politique générale bi danga ngaa fàtte bañ ko falee deful un mois mu ne nañ ko indil seen programme ministre yëpp day dem dafi déclaration politique générale ñu ne ah lii de nii nii lañ ko doon waxee sax ñu naan lii de mu ngi doog a am. waaw fal. moins de un mois muy waajal déclaration politique générale kon réew mi mu ngi jëm ci yoonu <laughs> émergence ndekete yoo ñun ñu ngi reculer <laughs> ndekete Sonko bi bi mu tiiree fere à bi ñu yaakaar day dem ndekete dafa dafa delloo rek arrière. Hmm. <laughs> xoolal fu ñu mujjee tey ba tey déclaration politique générale mais waxoon na ne nañu defaraat seen règlement intérieur. waaw léegi ne da njëkkeewul foofu tamit njëkkee woon la dafa njëkk ne indi leen ma affaire yi damay dem fan la mujjee defar leen ma doog a ñëw léegi mënut a njëkkee defar leen Sonko kay ay soññeem moom bu ci sukkandiku li Mohamed. donc na nga jàpp ne waxi kese lay doon waxi kese ah loolu laa ko jàppee ndax looloo fi daan am néew ma nag looloo am mais mënu ma ko gëm te du ma tee xëy de tey ma wax la de gàtt gàtt. waaw bu ne woon suba bu leen xëy ku nekk naa la versel nangam sa compte man ma xëy naa liggéeyi lu tax ah dama ko gëmut. am na kay damay liggéey ba gis message mu ne teng mu ne ah saa waa ji wax na dëgg tey de wax na dëgg daal di def nii daal di xool nu ma def waaye du ma tee xëy de loolu nag man la engagé. Hmm. du ma teree liggéeyi de moom dama lay wax lu leer nag. léegi ndax eh, bàkkee ah. la nga ne seen huit milliards yi ba sànq ba suba <laughs> dégg naa ñu ngi koy laajaat. huit milliards mais daf ne dugal nañ fa set milliards sept milliards moom mooy ni ñuy. évacuer ndox mi ni ñuy indee ah, dund gi fa jot a ñëw ak ni ñu eh, def waaye yi fa jot a nekk yëpp eh, déedéet ngeer non non non ngeer nag ngeer ngeer ngeer xoolaatal bu baax li nga maanaam déployé nañ sept milliards pour assister leen sept sept milliards yooyu. si ngeen ah, yow loolu nga gis waa bàkkee la nga yooyu ñu ngi lay dégg. ndox ma dellul boppam nga naan ku delloo ndox ma. te Bakel bu ñu mere woon yi xanaa dina feeñ ci élection yi gis nañ nañ def ci élection yi moo tax moo tax bëgguma woon ñu laaj laaj gi ñu doon laaj kay neexuma hmm. doon laaj moo ma neexut. laaj gi ñu doon laajaat milliards yi moo ma neexut. d'accord mais ñu gis ne dañu war a baral jéego yi pour mën a voter. waaw looloo jaadu 2025 looloo jaadu. mën a jublu nag ci mbir yi gouverner ngeer mën a kontaan. man de maa ngi toog di xaar xam nga xaar tàngu diglu tàngut. Hmm. man li nga may wax nii mu ngi dugg sama noppi xam nga lakkuma deful dara. waaw moo tax diglu méttiwul nañ diglu rek man moom seeni wax téyendi naa ci. Hmm. comme soññee nañ naa téye ci loolu rek. comme Jomaay soññee ne conseil des ministres naa téye ci loolu Sonko soññee waat na naa ci loolu. Hmm. du ma ne nag li ñu wax du dëgg waaye du ma tere xëy liggéey yi de moom bu doon lu ñuy joxe la buñ ko defee nag ma gis ko fii laay toogaat ne ah. sant yàlla beneen bi tamit maa ngi retiré remerciement bi ma remercier woon Jomaay. ci compte compte presse bi ñu waxoon ne dañ ko kenn débloqué wu ko. déedéet kañ ah. ba tey. vraiment loolu moom réccu naa ko li ma ko remercier woon. non donc yow da nga waxoon bu dee am na. waaw kay waaye yooyu moo tax retiré waat naa la ma la ma ci remerciement ba rek. man <laughs> mais kan jeex xibaar ne du ma gërëm ko deful dara. non amut na ci presse laa ne quand seen compte yi ba tey ñu ngi ko téye dañ waxante dëgg. d'accord te wax dëgg yàlla yooyu tamit day tas yaakaar la quoi nit ki boo dul tijji ay affaire am bàyyi ko rek bu ko bëgg a wax maa ngi tijji mu daw songu compte ba fekk. Ah, que moom moo ko wax tamit ah, est-ce que tax nañ ma remercier ku ma wërta remercier te yooyu yëpp baaxul ci man dama war di gërëm ku def dara man réew mi dañ ma fee bàyyi pour may gërëm ku def dara. Uh-huh. képp ku fi def lu baax nañ ma wax naa ko gërëm sant ko ku fi def safaan ba tamit naa ko jéebaane ba ñëpp yëg ko ndax mu jubbanti ko man posture boobu laa taxawee awma kenn problème Hmm. d' accord euh, Nguer gis nañu aussi bu ñu lay présenté léegi dañ naan Nguer membre C221. waaw kay. élection yi jeex na. waaw gisuñ benn rapport boo leen ci def gisuñ ngeen def si benn observation lan mooy problème bi C C221. non problème amu ci. parce que. non maanaam dafa mel ni fonctionnement bi demeetul noonu. Ah, parce que léegi sax dem nañ sax ba yërim mi ko créé woon. Nguer a ko ci ëpp. d'ailleurs bërki démb rek réunion nañ. Uh-huh. mais man man man. mais su ma gis plan d'action yi ñuy waaj. Oh, justement voilà fallait que ñu def ndànk parce que ku ñëpp xam foo jëm doo egg te heure bi Sonko dañoo teg bët. mais yéen ak dayo bi ngeen am. waaw dayo bi ni nit ñi ñuy dégg ne fa. ñu ñuy bàyyi xel ne fa. élection législative lu soxal askan wi am ba jeex defoo leen observation ci organisation yi tiré woo leen enseignement ci bi mu amee ba jeex. waxoo leen ci violence yi. y a des yu bari fi nekk waxuñ ci loolu kon buñ ci cité rek ñun. non mais en nga société a marre société civile la waxu dara. si ñoom ñu ngi woon ci biir kuréel gi ñu dippee COSES waxuñu dara ci affaire yi parce que élection yi ñi war a def recours sax kenn deful recours. parce que dafa leer waaw ñëpp nee nañ leer naka léegi looy waxati. mais yéen ngeen wax. wax ci maanaam. remercier peut-être organisation. ak leneen déedéet jaru ko de loolu yëpp jaru ko garaawut am problème. gars yi nee nañ dafa mel ni fi mu toll nii yow rek yaa fa des de. waaw waaw yërim sa dalaa mujjee jébbal leen ngay man man naa tudd <laughs> ma tabaski ma tam xarit ma daayira ak ni ngeen fi jugee woon mu am avec grande pompe ma ne la yow kay waajal ko journaliste nga. waaw waajal suñu événement yi di ñëw du la jox jour nag. lan moo si njëkk a jiitu. ma ne ñu ngi wut daal. benn endroit bu ñu dem fu ñu mel ne Dakar Arena. Hmm. wala yenn centre yi wala ci si. <laughs> wala Grand Théâtre da ngeen di répondre Sonko deuxième non non dañu tax a jóg. mouvement bi Dakar Arena am na borom essence. kenn du fa tudd turam soxla wuñu ko parce que Sonko ñun suñu cible quand ñu Sénégal mooy suñu cible da ngeen di natt seen bopp. mu déedéet Sénégal mooy suñu cible Sonko tey bu bu demee bu demee ba taxaw ñu wan ne xam ne kii mu ngi liggéey réew mi kii mu ngi teg réew mi ci yoon. mais ki même bu mouvement bi taxawee di ko xeex sax man maay njëkk a lànk parce que man Sénégal moom ma ñor de xanaa man du ma jéppi Sonko ba ba jéppi wàlle Sénégal kame même mere mere Sonko man naa mere Sonko mais bañu ma Sénégal Sonko tey bu taxawee maanaam ma gis ne moom mu ngi def lu raw ñi fi nekkoon liñ doon def mais lu ma lu ma man su ma taxawee ne Sonko kii man boobu man yàlla laay amanteel affaire boobaa ndax damay nekk naa ba damay dugg ci ñi suñu borom di wax ay naa fiq mooy ko xam bu gisee lu baax ne bon na. loolu baaxul tamit Mohamed ban bu ma xool bët boobu. mais yéen grand théâtre ne fi. waaw Marius Ndiaye nekk fi. lépp mu fépp mu ne dama la jox dama la cibleel. dama ne la mën nañ nee naa la mën nañ génn xaaral nee naa la mën nañ génn. ngeen war a dem sax monument ne fi yéen ngeen song ji Dakar Arena. d'accord ngeen xam Dakar Arena ko Ousmane Sonko def. waxuma loolu de xam nga yow mën nga ñëw. demandé fii joxuñu la. Hmm. nga demandé fee joxuñu la. mais da ngay yu bari da nga naan suñu ngay dem fii kiiwul fii ngay dem fii fii fii fii ñun see suñu réunion bi ñu doon def ci hôtel bi foofu bari na euh, lieu ñu demandé dañoo bañ Hmm? bañ leen ko jox waaw. dañoo ah loolu moom du yoon nag. waaw mais ñooy seen i lieu privé la bu la neexee ne deful jox ma la. alors que am nañ ah, fu ñu accordé d'accord te foofu def nañ fa réunion ñaari yoon benn bi presse bi ñëw na beneen bi presse bi ñëwuñu euh, entre ñun la woon ku ñëpp xam foo jëm doo egg te Ousmane Sonko dañoo teg bët suñu mouvement bi da cee teg bët <laughs> waaw. mais Dakar Arena bi lan lay doon. non loolu bàyyil bañ egg ci rek. comme du solo waxtaan waxtaan lay doon non comme du solo waxtaan bi nañ bàyyi ba egg rek. te ñu ngi waaj dafa am ñoom tamit bëri di xam ci ces deux cent vingt ay plainte tam. contre waaw contre euh, yenn présumé scandale yi fi am yooyu buñ ci excès dinañ la parce que y de des euh, deux dix-sept avocats yoo xam ne collectif bi jël na leen. Hmm? pour le moment mettre en place waaw. parce que pour mën a entamer ay action judiciaire waaw dossier yi nga xam ne ñu ngi koy sàggane te yoon defu ci liggéeyam ñu gën ñu fàttali ko yoon rek yenn ñu def ay plainte maanaam ngeer su ma la déggee da ngeen bëggu. bëggu leen génn génn bojo bojo comme ni ko li ñuy def dégguñu la 2DL la mooy. devoir démocratie liberté. loolu moo ñu tax a jug nag pour mu leer te loolu jomaay sax ànd na ci. mooy seen slogan. jomaay ànd na ci loolu mooy programme. devoir démocratie liberté. li la war ak li li penc mi di ñoŋ li ñoŋal penc mi. li nga war. ak li ku nekk sañ a def. ak li ku nekk sañ a def am foo ci yam waaw. liberté tam day. dañ koy encadré day ñëwaale ci démocratie te liberté bu ëpp tamit anarchie la démocratie bopp anarchie lay jur. mais ngeen dafa mel nii li ma la déggee ni ngeen wax boo leen génnaatee mooy raw seen première sortie bi. waaw loolu leer na dafa am quelque affaire yu ñu def plateforme bi tamit pareegul ñu hmm. bare eh, bëgg intégré bari na mais plateforme bi gars yi ñu ngi ci defar affaire yi daal di def yàkkamti comme seen àdduna jeexagut. Hmm. nañ ci ne rek. d'accord waaye mouvement ci liy jubbanti réew mi ci la bokk. ñu yaakaar ne day tas suba. xamaguñ la xew nañu noppal. waaw. am na ñu am na ñu jàpp ne doo leen dem fen waaw yaa ko ba yàlla baax na parce bi bu ñu taxaw ñetti nit la déparé woon ci benn saal mujj ci benn député àgg ba fan <laughs> tamit. xëy na nag ñoom waaw ñoom yoon wi jaar nag ñun duñ fa jaar ndax man ñun man de wax dëgg ruus naa nekk di wax lu dul dëgg moom loolu rek mooy cas de. mais su ma la déggee kon da am. xememteefu def politique. après non non mouvement citoyen la mais mouvement citoyen day dem ba jël pouvoir Macron fu mu jaar. Hmm. Hmm? Hmm. da ngay gis ñu bari fu ñu jaar. c'est te pour ñu ci kanam ñi ñu jëm politiciens yi dañuy xew yi ñoom ñëpp ci yam nag. parce que nag way politique yi dañ ñoo xoj de. mooy li ngay duppee nouvelle génération. waaw waaw politique yi dañ ñoo xoj de. ñoo gën a tuuti ci réew mi mais nit ñu xojee nii kenn xoju ñu ne dañ ñoo téye fii. wax dëgg yàlla boo xoolaatee booy politique yi li ñuy teg kenn teguñu ko. te bu nguur jotee ñoom ñooy nguur wéeru seen i sées jël seen i doom yóbbu Europe kenn la ci doomam néwul fii loolu tamit dañ cee war a taxaw seetlu quand même dañ cee war